mu ne sëñ bi nee na woon boo gisee ku baax fexeel ba jariñu ci moom boo gisee itam ku bon ku yàqu fexeel ba jariñu ci moom mu ne loola mooy boo gisee ku baax da xool la mu nga fas roy ci moom daldi mel na mu mel am lu baax loolee ndax nit ci boppam rek mooy ñàkk yitte waaye lu baax moom ku ko yóotu rek te delloo gannaaw yaa mën naa def nga jot ca kon boo gisee ku baax da ngay njëkk a xam la ko tax a baax nga fas yéene loolee nekk ci yow ku bon ku yàqu ko it mu ne na nga jariñ ci moom jariñu ga jariñu ga ne mooy nga xool ba xam la ko taxa bon la ko taxa yàqu bu loolu nekkee ci yow nga fexe mu daal dañ ba seet wecc te nga fexe nag lu yàgg-yàgg du la laalati bu fekkee nag itam loolu farul nekk ci yow nga sant yàlla te nag fexe ba lu yàgg-yàgg ko jegee